ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم هذا كلام اليوم بالخير حساب أجزل للمتقين bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ñun waa Daayira waa kër Cheikh Colle moom Cheikh Abdou Karim ñoo ngi leen di siyaare bu bëree bari tey nag dañoo amoon bis boo xam ne mooy bisub sëñ Abdou Karim ñu di ko màggalal fii ci kër seen seex Colle ci wàllu waañ wi gis ngeen soxna Ndey Seck moo taxaw nii ñoom ñoo jiite waañ wi eh, bis bi nag li ko waral mooy dañ ciy wàccee ay kaamil. di ci jàngi xasida di ci def salaatu ala nabi lépp loo xam ne sii rek eh, sëriñ bi bañ na ko ci dëkk bi ñu di ko bañ ci bis bi di ñaan sa borom dolli ñu dimbal ak sutura ba fépp fi ci bëgg egg ci bis bi rek ñu egg ci barkeb Sëriñ Fallu bis bi moom loolu rek lañ ci lañ ciy def jàng xasida jàng alxuraan jàng xasida salaatu ala nabi berndeel ci gan ñi kii nag mooy soxna Ndeye sekk moo yore wàllu waañ waaleykum salaam wa rahmatullah man jaay ndaanaan moo doon wax ci kàddu yi. waa kër gi ñëpp di nuyu sëñ Mountakha Mbacké di ko siyaare bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di siyaare waa kër gi yëpp di jiital ci siyaare bi sëriñ suñu wasila di sëriñ Cheikh Mbacké moom sëñ Abdou Karim waa li war a ñu dajee ci bis bi nag mooy fas yéene màggalal sëriñ seex Mbacké moom sëñ Abdou Karim mooy màggalal waajuram sëriñ Abdou Karim Mbacké moom sëñ Fallou màggal gi nag dañoo fas yéene muy wéy di wéy di wéy di wéy di wéy ndax amuñu lu sëñ Cheikh Mbacke te bëgg ko lool te yaakaar ko rek te muy sëriñ bu matub sëriñ sunu wasi la sëriñ bu mat sëriñ la bu fonk ay taalibeem bu leen bëgg bu leen respecté la sëriñ bi dafa xam ay taalibeem xàmmee leen bu baax a baax kon ko am sëriñ bu mel noonu war nga koo liggéey liggéey bu sel ñu fas yéene liggéey liggéey bi nag liggéey bu sel parce que yéene nag muy wéy di wéy kër gi nag mi ngi nii képp ko xam ne kii daal yaa ngi ci biir kër gi ñi ngi lay ñaan nga fas yéene def sa warugar ci daayira bi fas yéene daayira bi di wéy di bokk ci cotisation yi di ñëw ci liggéey bi di ko liggéeyal ndax mu sell ak na mu gën a rafetee ndax dañoo am lu jafe ndax képp koo xam ne kii boole na la ci sëñ Touba kooku mënatoo koo fay te sunu sëriñ bi ñu am day sëriñ boo xam ne bii ku ko am war ngaa sant yàlla bu baax a baax sëriñ bu baax la bu bëgg ay taalibeem bu leen fonk bu leen jox cër la sëriñ boo xam ne boo ko noo muy guddi muy bëccëg ak foo mën a nekk ak foo mën bokk koo war a fonk bu ci xayma taal nañ fi fukki mën ak juróom waaw ci xayma taal nañ fi fukki mën ak juróom ci ay ay façon yi togg yu bokkut togg nañ fi ay togg yoo xam si daanaka bokkul togg nañ fi ñeenti togg yoo xam si bu benn bokkul lépp bëgg a bégal suñu sëriñ bi rek parce que yeneen togg togg yu aw yoon ak yu jaar yoon yoo xam si danañ ci bëgg nañ cee dajee ngërëmam ngërëmam daal ndax ngërëmam rek moo ñu tax a dajee fii ku nekk fii ci kër gi tey rek ngërëmal suñu seex ngay sakku ndax ngërëmam rek mooy euh, sunu sunu sunu sunu sunu sunu mooy sunu fierté ñi ngi ñaan yàlla daal dajee ci ngërëmam bu baax a baax daal te liggéey bi nanu yàlla ak sëñ Tuubaa dimbali ba ñu liggéey ko nu mu gënee ak nu mu gën a sellee di ko ñaanal nag mu dund gudd fan lool lool lool ñu ngi koy ñaanal mu dund téeméeri at ak juróom fukk yéene nañ ko ko yàlla ko ko sëñ Tuubaa defal waaw ñu ngi ñaan daal yàlla def ci ak dundam lu kawee njortam fan ba yàlla joxoon yontu yàlla noox daal ñaan nan yàlla jox ko sunu sëriñ bi mu yàggal fi lool ànd ak wér ànd ak ñun taalibe yëpp loolu daal la ñuy ñaan jërëjëf asalaamaaleykum yéen mbokki jullit mbokki taalibe yi maa ngi leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen jox seen wàccu waaye di leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wér gi yaram ci barke Serigne Fall di ko ñaanal sama sang bi Serigne Cheikh Mbacke maa ngi ñaan lépp mu fi jàng ci alxuraan ak salaatu ala nabi ak astaghfirullah yàlla nga sunu borom nungu te fulal ko Cheikh Abdou Karim ak mboolem ko ko fa fekk ku mu fa fekk te yàggal fii sunu kilifa gii ñàgg ci ginnaawam ñun de ay dongee laxasaay lan fii ñu nekk bis bu nekk ñoo ngi fii waaye nag wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na rafet bu am solo taxawaay na ko taxaw bu am rafet maa ngi ñaanal ñëpp nag sant ñëpp di gërëm ñëpp nit ñi nag amuñu lu bis bi sëñ bi nag dafa fonk bis bi lool ba bis bi rek la am bis bii mu am nag dafa bëggoon teel bi yëpp jàppale ko ànd kook moom ba tax na kenn ku nekk mi ngi lay sant saa su mi ngi soñe mi ngi ñaaxee te sëñ bi dafa nekk kilifa goo xam ne nii kilifa gu woyof la gu neex a nekkal ku bëgg liggéey te gëm ni muy def ñun ñi ci loolu nu toqi ci loolu nu teetee waaye sañu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal fanu gudd ànd ko wéram te maa ngi ñaan ci yàlla jëmi sëñ Tuubaa fii ma nekk ci waañ wi di fi tàngal kafe gii képp ku ci naan rek yàlla na suñu borom jéggal te defal la fanu gudd yow mi xam ne yaay ñu jëlit yàlla yàlla defal fajuk aajo ak mujj gu rafet te maa ngi ñaan dund ba yeew fii samay nag ak samay xéewal di leen fas yéene di leen bernde waañ wi de ñaan naa ci yàlla di ko sasoo ak ak i xéewal saa su nekk yow it sant nan la gërëm nan la waaw lii mooy kafe gi mi ngi nii café gaa yi nii wax dëgg yàlla boobu ba tey segg nañ fi ñaari mbanay kafe waaw murit yi kenn mënu leen seetal dara jër kaas jëndoon naa ñetti téeméeri kaas di ko appapare ci nit ñi waaye segg naa ñaari mbane café kon nag sëriñ ca baa ngi alhamdulilah maa ngi segg ba tey jëmale ngoon te bàyyeeguma bii 4 ma du matin laa bàyyi maa ngi commencé woon 10 heures ci guddi 4 heures ma jeexal tey maa ngi waajal ngoon gi nii incha allah yoo ma bokkal waa kër sëñ Fallou waaw su ma jëwri nii ay soxna Ami Ndaw ay soxna yëpp ñu ngi nii nii ñu baax lan ñu bokk benn liggéey bi bokk benn waay bi ndax képp xewle duñ leen xàmmee diggis naa bi benn la ñu nekk ni ñu baax ay murid lan ay donga lan ca daal yi ñu nekk te ngërëm Sëñ Tuubaa rek moo leen ñor te wax dëgg yàlla bëgg bu bëgg jeex ki la yëg rek moo la amoon solo ay donga lan ñoom xamuñu guddi na xamuñu ngoon xamuñu dan sona ñii nii ñii nii ñoo ngi leen gisee engagement magal yëpp mën nañu koo jël kenn ku nekk bàyyi na itteem ñëw ngir yàlla bi te ñun ci dara ak lu mu mën a doon ak saa su nekk te sant na bu baax di leen gërëm ñii samay jëwri la kii sëñ Fallou la soxna yaa ngi nii ñoom it noonu lay mën a demee saa su nekk sëriñ Galas Cuuna ngi nii wax dëgg yàlla xeebuñu leen ci benn côté man tamit dama leen ñaan yàlla jëmi sëñ Fallou suñu doon def na ngërëm sell ànd ak faju aajo soxna yaay nii soxna daana sëñ dem المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم